waaw ñu ngi ak euh, Cheikh Omar Sy maa ngi lay nuyu di la sant ci wuyu gi. maa lay fay di la sant yooyu tamit. laaj bu njëkk bi mu dikk ci actualité bi nga xamante ne moo fës lool ci Sénégal ak coowal Ousmane Sonko ak li ñu koy tuumal ni kon wàllub yàkkataan ap kon soxna ci ab salon de massage bi nekk ci Ndakaaru laaj bu njëkk bi mooy ba xam yow ak gëm nga yooyu les accusations ak fi ñu toll nii ba xam bokk nga ci ñeneen ñi jàpp ni am na lu ci lal ci ginnaaw wala politique. maa lay sant di la gërëm. Mm-hmm. xam nga tooñ weesul xamoo lu gëmul mais man de njort naa ne. li ñu koy tuumaal de viol a ah, xanaa ma juum mais Ousmane Sonko de yaakaaruma mu def mel noonu yaakaaruma de sa personnalité ak ni mu ko gisee ak ni muy doxalee yaakaaruma ne kilifa utal noonu dina ko def mm-hmm. euh, la ca des nag mënuma ci àddu parce que wax na moom la ko fa yóbbu woon ak na ma fa demee ak lan lan la fa doon def keneen beneen partie prenante bi wax na lenn moo ko mën a moo ko mën a mën a séparer mooy justice. Mm-hmm. mais tamit Ousmane Sonko kenn mënu ko jëli këram comme ni ñuy jëlee Cheikh Oumar Sy parce que immunité parlementaire am may na ko ñaar soit moom mu décider ci boppam ànd ak ay avocat am. Mm-hmm. ne day dem tontu ji liñ ko convoqué soit mën na toog këram ne du ma dem tontu ji ba ñu lever sama immunité parlementaire. Mm-hmm. donc il est plein il est en plein dans ses droits. loolu rek laa mën a xalaat ne tey moo am solo. te jarul woon violence bi ñuy gis tey mooy ñu war ko mën a ak nangu li nga xam ne yoon moo ko may yoon nag may na ko mu bañ a mu bañ a defeere te assemblée nationale rek moo mën a indi dindi immunité parlementaire mhm. euh, kon yoon may na ko maanaam moom am na tamit sañ-sañ dem wuyu ji waaw am na sañ-sañ dem de son propre gré mhm. mu ne man d'accord jox nañ ma convocation may dem ak samay avocat ñu ma déglu leen mais mënuñu ko arrêté arrêté hmm. mënuñu ko arrêté parce que il a une immunité parlementaire à moins que le délit soit aussi grave pour ñu war ko mën a arrêté donc y a des y a des y a sur laquelle boobu la ñuy mën a boobu la ñu koy mën a woo wala téye ko wala jàpp ko ñu mën a ne Ousmane Sonko lii la def ba ñu am ci preuve Mm-hmm. mais li ñu fi waxagum ah yaakaaruma ne si Ousmane Sonko war nañ ko mën tey ci loolu. Mm-hmm. ci loolu gis nañu tamit ne ci xibaar yi sax ni procédure bi ci boppam ngir yëkkati maraanu kirlaayam daanaka door nañ ko ci assamble nationale ah, pour yow lan moo waral yëf yi nekk nii ci anam yu gaaw daar daar nii. waaw mais xam nga tey combat politique la. xam nga mm-hmm. nit ñi ñuy naxante. xam nga boo affaire yi. comme Ousmane Sonko depuis ba mu duggee ci politique ba léegi dafa leen sonal. Mhm. yàlla may na ko mobiliser na ay jeunes yàlla may na ko am na fi aura. Mhm. yàlla may na ko porte na fi ay combat mais xam nga combat tamit booy dóor maa jéeri gars yi buñ la jekkoo dañ lay delloo maa jéeri. Mhm. loolu nag moo am fu mu ne nii parce que tey buñ la amee fuñ la war a mën a jékkoo foofu benn en politique duñ la ko baal yow li nga leen di li nga leen di li nga leen di def ak li nga leen di li leen di wan. ba ñuy teg ci ba ñuy teg ci seen bot bët Sénégal yi teg ci seen bët dinañu fexe ñoom itamit fu ñu mënta mën mun la mën a galgale ñu galgale la foofu je crois que tey aujourd'hui l'opportunité pour ñoom mooy dindi dindi immunité parlementaire am pour war ko mën a euh, jaaxal carrière am wala génneeku wala wàññi ko ci politique bi euh, de toute façon dañuy ne seen bopp comme moo ñu doon sonal ñun tamit dinañ ko sonal. te loolee xam naa day passer comme lettre à la poste ni ñu koy waxee. waaw mais loolu mooy loolu c'est c'est ça qui est en fait ci ci li ñuy gis nii yëpp parce que aujourd'hui même bu ñu dindee kirlaayam. Hmm. lu muy gën a renforcer ci bëtu Sénégalais yi. mooy les nos institutions dañoo faibles. mooy wone aujourd'hui aussi que li nga xam ne mooy assemblée nationale dafa faible mooy wane ne justice tamit dafa faible parce que lii yëpp bu nekkoon ci yoon suñu dëkk mu ngi doon dox normal président de la république du dugal ci loxoom ci yenn yi euh, du du du nekk la butte des constitutions loo xam ne ku sëxër foofu nga war a jëm kon loolu yëpp duñ koy fekkee parce que loo mënta wax tey les sénégalais li ñuy jàpp ne tey fu mu ne nii la justice est entre instrumentalisée loolu moo tax ñu war am ay institutions am am doole yu dëgër yoo xam ne tey kenn du naataable bu ñu jógee ne ne dañuy dugal seen loxo ci dara dinañu dute ci seen ci seen indépendance d'esprit hmm. mais aujourd'hui xam na ñu ne tey ne taxawaayu le procureur Bassirou Gueye moom fu mu mun a jot Sonko du ko ko baal du ko ko baal parce que Sonko yekk na ko ni may xame te moom itamit dina ko wan ne tey man maa nekk ci procureur de la république bu la waree def mandat dépôt naa la def bu la waree yóbbu kaso dinaa la yóbbu kaso. Hmm. Hmm. te yaakaaruma ne tey war nañu foofu ci suñu démocratie parce que am na loo xam ne muy xaar population bi xiif mar sonn bay euh, suñu ressource naturelle suñu pétrole ak gaz yi nga xam ne tey nit ñi ñu ngi ci teg seen bët xale yu gune yi war a immigré di dem seen yoon donc am na un temps soit peu de retenue boo xam ne ñaari parties prenantes yëpp ñu ngi ko war a def parce que dañuy gis ñu yàq ay bitiku jàmbur ay oto jàmbur ay kii yooyu fu mu ne nii dëkk bi day gën a tar ñi nga xam ne seen yoon nekkul woon ci loolu ñu ngi nekk ainsi ñu leen di porter loo préjudice Mhm. yaa ngi wax waxu député yow nekkoon nga ancien parlementaire xam nga bu baax lu kër googu di njëriñ ak solo si euh, tey jii bu ñu jëlee tamit ay sañ-sañ yu bëri yi ñu moomoon sax jox ko lépp Macky Sall ba mu mun di décréter état d'urgence ak état de siège et finalement fu ñu toll nii ñun euh, ban njëriñ lañu mën a gis ci député yooyu léegi. mais tey lu pandémie bi ni ñu ko toxalee ak assemblée nationale nu mu jébbalee ay kirlaayam ak ay mën-mënam amul benn njëriñ pour tey aujourd'hui des questions politiques lay régler su bu ñu woo leen convoqué la ñoom ñëpp ñu ñëw kontaan ñu lever seen kii ñu ne lever nañu lever nañu euh, immunité parlementaire Sonko l'histoire se répète fii lañ fi dàqoon président Macky Sall yàlla bu mu bu bu bu la bu bu décidé nit ki mooy jàll ci dara mën na la jàppale nga jàll bu ñu levee ay kilaayam loolu amul lenn lu muy yokkal sénégalais amul lenn lenn lenn lu muy yokkal sénégalais bu ñu demee mu ñoom ñoo am majorité mécanique ñu dindi killaayam après ñu jéem ko fi toroxal wala ñu jéem ko jéem a wàññi carrière am politique mm-hmm. mais c'est pas bien parce que war nañu dépasser li nga xam ne tey situation bi ñu nekkee war nañu suñu dëkk yëpp ñu ngi avancé mais ñu ngi toll ci lenn loo xam ne mm-hmm. ñu benn solo askan bi amul benn solo ni nga xam ne tey euh, ñu bokk ndey ak baay waroon toog mën a waxtaan suñu biir bu transition politique amee mu am bu un jeune ku mel ni Sonko bu bëggee aspirer à diriger le pays bu ko yàlla mayee mu diriger ko bu keneen moromam amee mu demee ko noonu. Mm-hmm. mais tey assemblée nationale bi ak institution yi dañu wane sen faiblesse rek par rapport à li chef de l' état bëgg. Mm-hmm. bu ñu gisee bu ñu desee ci coowal Ousmane Sonko bi ba tey ak presse bi nu mu koy traité tey bu ñu xëyee gis yéene kaay sax am ñi jaar ni am ñu mel ni ku ko gën a suuxat am ñu mel ni ku koy layal ñenn ñi gis ni sax dañoo woote insurrection donte kon Ousmane Sonko ci boppam dafa appelé à la résistance euh, tey ji euh, traitement presse bi ci yéene xeetu dossiers yu sensibilis yu sensible yi naka nga ko jàngatee. waaw mais xam nga presse moom liggéeyam lay def yenn saa Euh, euh, lu ñu mën a wax ba wax mooy euh, presse moom am na loo xam ne dafa corrélé par rapport ak li leader parti politique bi wax. Hmm. bon maintenant ñi ci des li ci des dañu mën a gàddu mooy tey que ce soit le pouvoir ou l'opposition dañuy am seen i presse en ligne dañuy am seen i presse yoo xam ne dañu fi jaarale di jaarale seen communication presse bi moo war def introspection xool lu muy réguler parce que ñoom tamit. d'une seen liggéey moo nekk impartial waruñu faral kii waruñu faral kële ñoom dañu war a rëy la l'information ni mu ko waree sans def ci ay commentaire mm-hmm. parce que boo ci commencé dugg dugal ay commentaire ci wax yenn yi da ngay faral mm-hmm. et la peine mm-hmm. lu ci am solo ba am solo mooy ñoom tamit dañu war dañu war yem ci seen liggéey liggéey bi mooy lan mooy relater les faits lii am ñoom duñu ay juge ñoom duñu ay ay ay du ñu leneen lu dul lii moo am nii la amee lii lañ ko gisee peut-être nag bu nekk ay chroniqueur nga wala nga nekk kenn koo xam ne da bidd am na ñu koy def. Hmm. mën nga joxe ay avis. Hmm. sur le sur la situation. mais jusqu'à présent il faut essayer d'être autant impartial ci ay situation yoo xam ne yow si sa bopp sa liggéey lu muy indi rek mooy relater les faits. Hmm. ndax euh, dossier bi du wàññi doole Sonko ci politique. bon xaw ma ndax dina wàññi du wàññi je suis je peux mun na ko dooleel comme mun na ko wàññi. Hmm. parce que loolu tamit muy gëm-gëmam bi am jeunes yi am ci moom ànd ak moom ba ba ba indi ko ba fu mu toll nii ba mun nekk ci troisième position a ah, xaw ma ndax lii dina ko wàññi wala du koy wàññi est-ce que la constitution politique bi dina changer wala lu changer il y a beaucoup de d'aspects yo xam ne ñu ngi ci. Hmm. mais euh, de toute façon il doit gagner en maturité encore plus ba xam ne ne yàlla may na ko tey mu taxaw benn taxawaay boo xam ne. a euh, duñ ko baal dara. Hmm. koo xam ne nag xam nga ne duñ la baal dara da ngay moytu di may say adversaire ay ay ay ay ay ay buntu yuñ la fuñ lay mën a laale. Hmm. yàlla may na ko sutar naa ko ba léegi. Hmm. jotuñu ci moom na fexe mu continuer concentré wu sur l' avenir du du pays ak lan la ci def. Euh, ci yoo xam ne dina ci participer. loolu la bu à la fin la journée sénégalais ñooy décidé ku ñuy Mm-hmm. ak lu ñu mën mënta def tamit dañu neloo suñu yàlla ci suñu suñu suñu gëm-gëm ci yàlla mm-hmm. ay fal mooy folli mm-hmm. donc ak lu kenn mën a def bu suba bu nekkee moom ko war a jiite yàlla moo koy def moom mu jiite ko loolu moom ala kulli xaalin kenn mënu ci dara bu nekkee keneen la tamit yàlla moo ko fiy teg donc ni ñu delloo suñu xel ci yàlla xam ne tamit dëkk bi waru ñu ko mën a tas parce que euh, man dama bëgg a falu wala kii daf ma wax lii dinaa fayu donc am na yeneen priorité yoo xam ne war na tax ñu gën a ñu wax ci wàllub euh, suuf si yoon honorable député ñu wax euh, ci li nga xamante ne moom lay faral di nemmeeku ci Sénégal coowal suuf bëri na lool luñ koy dégg bu yàggul dara ci mbuur euh, ngir saafara bi lay jafe-jafe toll na ay jamono proposé yoon nga ñu daal di fi samp ab agence nationale ngir mu mën a kon saytu lépp lu jëm ci coowal suuf ci Sénégal mba xam loolu jot nga ci dégg ab avancement ci mbir mi wala sa xalaat boobu moom faalew ñu la ci ba léegi. non xam Mm-hmm. mais l'histoire me donne toujours raison au Sénégal tey Sénégal rek moo am DGID li si boo demee yeneen pays yëpp dans la sous-région ak yeneen amul DGID i moo am direction générale des impôts mm-hmm. suuf si yeneen agence ñoo koy gérer nga xam ne tey du doole bi ñu am tey DGID dafa bëri li ñu concentré ci pouvoir dafa bëri tey luubal yi dafa bëri waxuma nag ne fonctionnaire yëpp la am na ñoo fonctionnaire yoo xam ne maanu nañu ñuy def seen liggéey di leen sant di leen loolu mais am na ñoo xam ne tey ni ñu enrichir c'est pas normal nga nekk un simple fonctionnaire de l'État ngay tabax ay këru milliards mais c'est pas normal donc loolu ñu ngi gaañ dëkk bi donc il faut qu'on revienne moo tax ma ne man Cheikh Tidiane Ba bi nga xam ne mooy diriger CDC sama xarit la naw naa ko ci liggéey bu muy def mais li ñuy def nii ci trente hectares yi man d'accord uma ci ñoo mën a jënd Mm-hmm. te si si suuf si ñuy jaay ñun ñoo ko moom état moo moom suuf état bu ñuy wax état ñun la du président de la république jël suñu suuf ne la ñun suñu suuf li nga xam ne sénégalais bi ñoo ko bokk état da koy jox kenn te muy institution de l' état mu jaayee ko six cent mille francs kooku quatre vingt dix neuf pour cent des sénégalais mënuñu ko jënd. Mm-hmm. Mm-hmm. bu boobaa ña fa doon loué à côté ak ña naroon tamit dootuñu mën a am moyen parce que loyer day doublé munoo yow ne da ngay wàññi loyer di ko yokk de l'autre côté bu ñu jëloon def ko benn parc attractif jox ko ci partenariat public privé ñoom ñoo koy woote mais am fa aéroport privé mais xaalis bi fay jolli kenn du ko fa dañuy créer emploi dañuy créer ay activité dañuy indi ñi ñi ñuy naaw indi créer tourisme loolu yëpp moo ëpp xaalis mooy kër gi day ñëw toog rek kër gi dañ koy spéculer rek kenn rek moo ci am donc yooyu yëpp dañ ko war a xoolaat am vision ci pour tabaxaat suñuy dëkk. waaw loyer boobu ngay wax euh, gouvernement bi annoncé na sax euh, ci weekend mi ni kon euh, dinañu indiwaat ab soppar ñi gi ñuy def ci loi bi nga xamante ne mooy loi 2014 bi ñu wàññee woon location bi boobu ak léegi def na juróom-ñaari at waaye mu mel ni tey jii la waa la gën a ay yëf yi gën a métti tey jii lan moo war dëgg ngir tamit location boobee nga xamante ne askan wi yàgg nañ koo joytu mu mën a yemb. waaw mais mais mais mais xam nga loyer bi. Hmm. loolu laa la wax munoo ne da ngay wàññi loyer fii ba pare di def ay yeneen transaction yoo xam ne du renforcer loyer bi donc loi bi dañ ko war a rectifier xoolaat ko mais dañu war a bàyyi bi ñuy def ci foncier bi ñi koy spéculer ñooy ñi nekk ci état bi du citoyen simple bi ñooñu ñoo tax loyer bi di cher man mënu ma ko cherloo yow mënu la ko cherloo mais ñi nga xam ne ñooy taxaw boo xam ne fu ñu teg suuf ñu ne ñoom dañu ciy am dix. dañ ciy am un hectare wala fu ñu war a dagg dara wala fu ñu war a tabax kër ñu war lañ jox seen i wàll mais ñooñu tax loyer bi di cher donc yëpp dañ ko war a xoolaat delloowaat suñu xel ci yàlla xam na ne lii duñ fi yàgg-yàgg dañ ko fi bàyyi hmm. xaalis bi mënoo ko lekk ba mu jeex bu ci yàggee sax yow tam dañ ciy fër fër bi da lay gaaj jaru ko hmm. donc ñu delloo si xam ne Sénégalais yi dañu war a ñëpp manko ànd liggéey pour dëkk bi naat ñi ñi mën a gis ci seen bopp Cheikh Omar Sy ancien parlementaire Rewmi FM mu ngi lay gërëm d'accord jërëjëf